sëriñ axma amoo moroom jukkoy yonen ba moom la yor lu am naqar ba dax mu mer du lépp julli ngir ñàkk wer bul ni ma déet lii de dëggu na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ndokkeel ci bisu màggal gii nga xamee ni moom la ñuy fàttaliku sëriñ Ahmadou Mbacke Tindodi di bis bi nga xamee ni moom la tànn dëkkaaleek boromam subhanahu wa taala di ñaan yàlla sun borom dolli ko leer at mu nekk nag eh, exposé bii ngeen taxaw at mu nekk dañ koy amal fii ngir xam xamle dunduk Serigne Ahmadou Mbacké di benn bisi jiitu mooy dañ koo def ci kàddu wàllu olof mooy dañ koo def ci dañ ko bind bindum olof nga xam ne ku fi ñëw dinga ko mën a liir ñaareel ba tamit ñu def beneen texte boo xam ne français la ku munta liir français ku munta liir olof mën a liir français bi beneen texte bi ñu def ko arabe nga xam ne ku munta liir olof mënoon lire français mën a lire arabe nga xamee ni ñetti langue daal yoo xamee ni def nañ ko ci am na ci biir exposé bi exposé bi nag ni mu tëddee mooy dañoo njëkk a xam ne dunduk sëriñ bi mooy kan mooy sëriñ Ahmadou Mbacké Tindodi fan la jote jaar ci njàngam ab taxawaayam ci biir société bi mooy ni mu doon taxawee ci tudd doom yéeg ci miraas soo ñëwee ci tudd doom yi moom lañ jëmmal nii nga xam ne ne gis nga yor nañ lu man ñaar fukki foto yoo xam ne yëpp ay tudd doom la nga xam ne ni suñ naan sëñ Ahmadou tudd ay doom loolu boo ko déggee soo xoolee lii rek am na lu koy jëmmal mooy tudd photo yi tudd doom kilifa gu mel nii nga xam ne bi mu fiy jógee am na juróom-ñaar fukki ak nàngam di tudd ay doom loolu am na am na solo lim jëmmal soo xoolee nii tamit mooy jëmmal lu mel ne Tindodi nga xam ne 1914 la ko sëñ Moudou saa sanc soo xoolee Tindodi gi teen bi 1960 la ko gasoon teen bi 1960 la ko gasoon nga xam ne mooy teen boo xamee ni Tindodi amuñu woon am ndox boo xoolee teen bi am na lu mel ne machine machine boo xamee ne sàmba Yàlla Diop ministre moo ko wutaloon sëriñ bi kon loolu bokk na ci li nga xame ne jëmmaloon na ko Tindodi lii tamit lu mel ne euh, mooy jàkkee sëñ Mourou Moustapha ji nekkoon Tindodi moo ko tabax nii miiree kër gi. Euh, bokk na ci mooy lu mel ne école fran franco ba nga xam ne moo nekk Tindodi moom moo ko tabax ba tey jii mu nekk école bu mag waxtu wi ñu toll. suñ suñ xoolee tamit ci xalaaxa ak diggam ak bokk yi lii rek dëgër na ci sëñ Mourtala yi doomi sëñ Tuubaa tuddee na ko doom kii tuddee na ko doom suñ xoolee tamit kii tuddee na ko doom sëñ Cheikh Gaïndé Fatma mi it tudde na ko doom suñ xoolee sëñ Moudou Abdou Khadir mii tuddee na ko doom si mooy mooy taw sëñ Abdou Khadir suñ xoolee sëñ Abdou Baara mi tamit tudde na ko doom suñ xoolee sëñ Abdou Lahad Baara mi it tuddee na ko doom suñ xoolee suñ Mbàkke Soxna Lo mi it tudde na ko doom buñ xoolee Alaaji Baara mi tamit tudde na ko doom buñ xoolee suñ Aliou Mbàkke mii tudde na ko doom suñ xoolee sëñ Mbàkke Madina mii dafa amoon yéene tuddee ko doom waaye doomam sëñ Ibrahima Ñaamar moo ko eggalee yéene ja sëñ sëñ Mbàkke Madina mi dafa amoon yéene tuddee ko doom yàlla dogalu ko doomam eggale yéene ja muy sëñ Ibrahima Ñaamar tudde na ko doom kii ñuy gis ci exposé bi euh, kii ñuy gis nii sëñ Madiba Silla mii moom lañ dara jaale woon démb bis bi sëñ Madiba Silla sëñ Madiba Sylla nag ci seexi sëñ Tuubaa la bokkoon waaye dafa tudde woon sëñ Ahmadou Mbacke Tindori doom bi mu fi jógee tamit ay doomam yu jigéen ñu si bari sëñ Ahmad Tindori moo ko moo leen taxaw mooy doomam yu jigéen ñëpp mu mayee leen sëñ Madiba Sylla mii moom lañ tuddee woon màggal gi bi ci conférence kii ngeen gis mooy sëñ Bay Falloo Ndiaye doomu sëñ Daaru Assane Ndiaye moom tamit dafa amoon xalaaxa bu dëgër mook sëñ Ahmadou Mbacke di ak njabootam tamit tuddee ko doom muy sëñ Cheikh mu Ndiaye ñoom moo tax tamit ci biir exposé bi ngeen gis ko noonu buñ xoolee kii mooy Baye Matar Diop Cump Baye Matar Diop Cump euh, moom tamit ci magi taalibe sëñ Mourou Moussa yu magi la moom tamit tuddee na sëñ Ahmadou Mbacke Tindodi doom jox ko ko kii ñuy gis ni mooy Baye sëñ Diaw Mansour waaye sëñ Jaw Mansour mi ngi bokk sëñ Mansour Jaw moo ko jur moom euh, mu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko seexal Baye Mansour sëñ sëñ Baye sëñ Jaw Mansour mi sëñ Ahmad Tindóori ci boppam tudd na sëñ Ahmad Tindóori doom jox ko kii ngeen gis nii mooy sëñ Seex Faati Mbàkke Badiane sëñ Seex Faati Mbàkke Badiane mi doomi sëñ Seex euh, doomi Seex Sidi Muxtaar Balla Badiane la moom tamit tudd na sëñ Ahmadou Mbàkke Tindóori doom ba doom ji ko tuddee doctorat euh, am na doctorat ba mi ngi jàngale euh, Angleterre daayira bii mooy dayre daayira Tuhfatu Mutadaraxiina ñoom lii seen bànqaas si liggéeyu sëñ Axma mooy bindal ko téere nga xam ne am na téere boo xam ne nañ ma ko jox ma présenté ko sax benn téere mooy téere bii dund sëñ Axma lay nettali téere bii ñu ngi ko bind ci dund sëñ Axma Tindodi ñu ngi ko tuddee diiwaanu sëriñ Axmadou Mbacke Tindodi diiwaanu sëriñ Axmadou Mbacke Tindodi boobu nag nga xamee ni sëriñ euh, sëriñ bi moo joxe ndigal. ñu ñu génne ko ren nga xam ne ku bëgg a xam liggéeyu daayire bi daal mooy dajale mbindum sëñ Ahmadou Mbacké Tindouly ak dundam di ko présenté di ko jàngale pour nit ñi gën koo xam ñaareel ba it mooy am na benn daara bu ñu tabax Tindóodi mooy daara sëñ Mourou Moussa ji nekkoon Tindóodi daa daa daayira bii ngeen gis nii ñoom ñoo koy taxawee muy daayira Tufatul Mutadarrihina soo xoolee ma ci bunt bi noonu di nga ko mën a jëlaale ñoom ñooy taxawu buñ ñee suba la màggal tamit conférence bi ñu fi am ñoom ñoo koy taxawu taabaronn yi ñu fi amal tamit ci wàllu yeete xam-xam ñoom ñoo koy amal exposé bi tamit ñoom ñoo koy amal ak euh, yeneen bànqaas yu jëm ci wàllu xam yooyu yëpp incha allah amal nañ ko amal nañ benn école boo xam ne tamit ñu ngi ko tuddee euh, école euh, école Tufatul Mutadaraxiina mi ngi suro moo xam ne ña ngi fay jàngalee lépp loo xamee ni dañ ciy yeete ci wàllu xam-xam mbooloo mi daal dañoo tënku ci yeete ci wàllu xam-xam loolu daal mooy liggéey bi kon yéen ñi ngi leen sant bu baax yéen ñi nga xamee ni dippee màggal gi bi mu jubsee ba tey yéen a ngi yéen informa yéen a ngi yéen nit ñi yéen tamit ndax lii buñ jublu woon a yéen nit ñi te jëlu leen ko du am sens waaye jël gi ngeen koy jël muy jàll ci nit ñi nit ñi di ko jël di ko jëriñoo kon yéen yéen yéen a yor jërëjëf ji koy yonen ba moom la yor am naqar ba dax mu mer du lépp julli ngir ñàkk wer bul ni ma déet lii de dëggu na